kon dañuy enchaîner ak suñu yaay yi di di borom taxawaay di suñu bàjjen di jigéen ju mën góor mu di soxna Aïda Mbodj jërëjëf waaw yaayu Sonko foofu laa waroon na mujje waaye ma jëkke fi yaayu Sonko mu ngi dénk Sonko sunu boroom mu ngi dénk Sonko le peuple sénégalais mu ngi dénk Sonko la jeunesse sénégalaise mu ngi dénk Sonko sa peuple libre sa peuple souverain bi nga xam ne tey ci ngoon ñoo mobilisé wu boo xam ne jaroon na ko jaroon na ko ngir bañ troisième mandat jaroon na ko ngir les libertés jaroon na ko ngir violation yi ñu dis yi def ci disposition constitution bi jaroon na ko ci benn nit boo xam ne mooy lekk njabootam di lekk mooy falu njabootam di falu mu jël waa Sénégal noot di def dis dictature yëpp ñi tegul dara ci yoon lu mu bañoon démb nangu na ko tey seen mobilisation bi jaroon na ko seen na teral gor yii ci sama gannaaw gor yi nga xam ni amaluñu kenn xaar ma yàlla topp nu kenn ndaxte day bu bàyyee fàttaliku woon soxor waaye bàyyi yaa ngi nii waaye fàttaliku wuñu kon jërë jëf waaye yeewi askan wi ñu ngi demandé peuple sénégalais ñu jël seen matukaay am seen fulla am seen fayda fii la démocratie am ñii ñooy libérer le peuple ñu góorgóorlu dem ci inscription yi révision bi nga xam ne moo waroon am daf ko def révision exceptionnelle ba pare def ko benn moo ma bëgg ngeen préparer jël seen disposition carte bi mooy affaire bi li ci des taxaw tem bu leen kenn njuuj bu leen kenn nax bu leen kenn def dara ndax ay gor ngeen ba pare kenn mënu leen a jënd kon nag jàpp leen ci yeewi askan wi yeewi moo nekk fii moo nekk fële moo nekk la 14 moo nekk la 15 le 16 le 16 le 16.